الغائبة يا أن الله ñëpp teewlu ñu déglu sëriñ bi jërëjëf ti sëriñ Saaliw jërëjëf ti sëriñ Saaliw jërëjëfati sëriñ Sada ana Aliou Kébé na ñëpp yegg suuf te diglu ndax jataay bi jataay bu am solo la nañ ma Alioune Kébé bàkkal baatub laa ilaha illallah nam ko daan defee ngeen aw ko bala ma leen a ñaanal bismillah Ahmadu Bamba Bamba jërëjëf sëñ Bamba waaw waaw jërëjëf sëñ Bamba waaw dunu amoo yaatu ko may jërëjëf sëñ Bamba borom Tuuba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf Maam Bamba dunu amoo yaatu ko may jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba waaw waaw jërëjëf Sëriñ Bamba jërëjëf Sëñ Bamba

man sa te yaa nuy moom kenn nga

teewoon fi daaw teewaat fii ci wér ak tal ak fekke maa ngi leen di sant bu baax ci nii ngeen taxawoo bisu Sëñ Tuubaa yi jël sant gi yëpp Pam Ndiaye professeur mu jàllale ma ko ci mbooleem jëwri yi nànk liggéey bi ma leen di seeral ni bëgg naa lool mbégte moo xam ni foo ko takk rek romb na ngir yitte ji ngeen def ci bisu seen Tuubaa bi nga xam ni da koo fonk lool ba yemalewu ko dara nii ngeen ci sagale ku tedd gi def ci seeni ñàkk te rek tax kenn ku ci nekk dërëm bi mu ci def ngir Sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa yàlla bu ko rëccu nii ñu ko teewee ren yàlla nañu ko teewaat noonu déwén te kenn bañ ko wuute mbooleem daayira yi nga xam ni joxoon naa leen organisation bi na ngeen xam ni ba fii ma toog di wax day dara naqariwuma ci programme bi ñi ma dénkoon suba la màggal da soxna Fat bu Touba muy njëlbéenug ñuy togg ci daara ji togg gu noonu def nañ ko ci anam bu rafet anam boo xam ni mucc na ayib ànd naa ko dal ak jàmm ju yaatu joo xam ni kenn mënu koo xiyaas <coughs> jot naa it information yi ni yaatal nañ ko ba ñépp gis nañ ci seen bopp kon maa ngi sant bu baax jëwriñ soxna Marème Diop na ma santal mbooleem ñi nga xam ni dañoo bokk ci daayira soxna Faat Jaxate bu Tuubaa Kayaar bi nañ xam ne sant naa leen bu baax nañ jàpp ni bu dee ngërëm lañuy ñuy sàkku ak mbégte seen mbégtam sëriñ te sa mbégtam sëriñ ci yow tuutiwul ndax Sëriñ Tuubaa nañ jàpp ni loolee am nañ ko ci man ndax bëgg naa ci ñoom lool ñi aaye tey la màggal muy daayira soxna Faat Jaxate bu Grand Médine mission bi ma leen joxoon ak yaakaar ji ma amoon tasu leen ko def ngeen ko nu mucc ay ayib ba fii ñu toog di wax nii yëgaguma lu ma leen mën a sikka ci ci bés bi lépp jaar na yoon ànd naa ko dal ak sawar ak yitte ak bëgg ak yaatal gan ñépp itam satisfaire ngeen leen na ma ko bëggee woon ba kenn ku ci ne gis na boppam ci màggal gi loolee ak cant la goo xam ni maa ngi koy tekki loxob jëwriñ Pam Modou njaay mu tasaareel ma ko ci mboolem membre daayira Grand Médine rek nañ xam ne defati nañu jaloore defati nañu it mbégte moo xam ne yaatu na lool te ma sant ci cant goo xam ci sama xol laa ko tibbee bu fekkee ni ngërëm li ngeen ci doon sàkk muy seen ngërëm ngërëmal kilifa te dul tuuti ngir sëñ Tuubaa ngërëm loole na ngeen xam ne am ngeen ko ndax gërëm naa leen ñi aayeet lan deme màggal mi bis ni ki tey nga xam ñoo doon defar tey ndékk yi ak añ yi muy daayira Kanzul Muhtadina maa ngi leen di seedeel liggéey bu rafet bi nu def di leen ñaanal ci barkeb sëriñ bi lañ cay sàkku sa borom defal leen ko maa ngi leen di xamal ni li ma leen dénkoon day yëgaguma lenn lu ma ci metti te def ngeen ko ni ma ko bëggee yaatal ngeen ko itam ba mbooleem fu nit ne ci kër gi yëg na ci boppam encore loolee na ngeen xam ne sant nañ ci bu baax ndax sa kilifa sant la nga def ko ni mu ko bëggee loola tawféex rek la ku am tawféex rek moo ko man kon nag daayira Kanzul Muhtadina jëwriñ Papa Gueye maa ngi lay seedal sama cant ci ñoom ni leen nee leen bég naa mbégte mu kawe lool te lépp lu ñuy sàkku ci jëf ji ñu doon jëf te Sëñ Tuubaa tax te jaare ko ci man sàkkuteef boobu nangul naa leen ko te it ñaar ñaanal naa leen ko sama borom dina ko defal mboolem yi ma dénkoon yeneen organisation yi muy daayira Riyaadu Saalihiin jëwriñ Pam Ndiaye professeur moom it maa ngi koy sant bu wér moom laa dénkoon organisation fi war a defee jataayu yoor yoor bi mu dacca loo xam ne man xam naa ci lu bari loo xam ne moom dalee màggal ba léegi mosu koo daj ci coono te coono màggal nag ku yaakaar day niil rek xamoo Sëñ Tuubaa ndax ku gorewut bu noo sonn ci màggal bëgg lu baax rek mooy tax nit di sonn ci màggal coono bi mu ci daj ba lekkut coono bi mu ci daj boo ko gisee da koy yërëm bay miir ba jaxasoo coono boobu yëpp la ko lal lenn képp la mooy damaa bëgg mu baax kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa nag ba sonn ci yenn sonn yi ngir bëgg mu baax yow wàcc nga te nam ko bëgg woon amee na ko noonu ndax mboolem yoor yoor bu nu fu mu sa def rek yoor bi mu ci gën a kawe moo ci gën a kawe moo ci gën a riis moo ci gën a dal moo ci ëpp xéwal kon nag jëwriñ Pam Ndiaye loolu ma la dénkoon yëg naa gis naa ndax man su may liggéeyloo nit damay summeeku ànd ak moom yor beneen melakaan teg ko pérection ba keroog muy pare soo pare du tee ma xam ne jàmbaar nga waaye yëg naa ni jàmbaar dëgg nga te def nga la nga war a def lépp nag def nga ko lépp luy tax mu baax rek def nga ko waaw kon nag loolee na nga xam ne du niil ndax sëñ Tuubaa kenn du ko liggéeyal te doo fayee ko kon loola la nga cay sàkku muy sa ngërëmal sëriñ yooyu tam na nga xam ni am ko mbooleem banqaas yi ne ci daara ji itam kenn ku ci nekk la nga jàpp ni mooy defar nga di ko def te yëguma ko sax loolee na nga xam ni ak am naa ci cant lu waaye def ci lu baax te yëguma ko rek sëñ Tuubaa dina la ko fay ndax mën a amela saalihan moom fa li nafsihi rek nga ci moo ci teg wa man asaa moom fa alayha rek moo ci teg wa ma rabbuka bi zallamin abid nag ab àtte la mooy yàlla di tooñ kenn kon na xam ne sant naa bu baax di sant bu baax itam ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon mbirum xasida yi te di ko jàng muy kuréel yépp di kuréelu riyaadu saalixiin di kuréelu tubaa kayaar du kuréelu Tuubaa te Tiwaawan Pël ñu fi njàng mu am solo xasida yi njàng mi sell na dal na xol yu nangu nañ ko def ngeen ko ci pasteef nandal ngeen suñ ruu itam ba nu ba nu nand afaa ñuy nandal suñ biir yi ci ñam wi te xasida yi loolu moo koy def te yéen ko doon def kon yéen jàngkati xasida yi na ngeen góorgóorlu te xam ne Sëñ Tuubaa da leen defal ay tawféex xasida yi ngeen doon jàng xaraf yaak baat yaak lépp la ca di ndimbal ak tawféex yàlla yàlla sotteeku ci seen kaw barke borom Tuubaa di sàkku ci mbooloo mépp ñu fas ci jataay bii ak tàggatoo bi ngeen fas ci seeni xol ndax fas lu am solo la sunu boroom defal nu tawféex joo xam ni fi nu bëgg Touba Mawahibou bu yegg fa dina fa yegg ci xeetu màggal ndax ba léegi xam naa ne la ci seeni xol ngeen bëgg koo màggale ba léegi màggaleegu leen ko des na xam naa ne ba léegi jàpp ngeen ni màggalagu leen ak li màggal gi di kawee lépp jàpp na ni màggalagunu kon dañuy ñaan rek sunu borom defal na tawféex joo xam ne su màggal gu jubli si gan gu fi ñëw moom dañ lay dañ lay toppatoo ci anam bu rafet képp ku fiy gan nag lépp loo xamante ni bii ni metti na la ci ci waxin nang nu ko jéggal ñun taalibe yëpp ndax dañuy bëgg satisfaire gan ñëpp Touba Mawahibou ku ñëw fii dañuy bëgg rek nga ànd ak mbégte donte xam naa ñëpp a bég sax waaye doomu aadama mën naa am la solo ko naqar doo ko xam waaye ñu leen di xamal loolu rek daayira bi muy taalibe yi kenn sàkkuwut lool liñ bëgg mooy képp ku fi ñëw tey gan ànd ak daayira boo mën a àndal yaa xam waa Grand Médine nga àndal yaa xam waa Kënsu nga àndal yaa xam waa xitma nga àndal wala waa riyaadu nga àndal wala teewaan pël nga jóge ak cetera kum ci man a doon rek wala wala waa kayaar nga àndal dañuy bëgg boo ñëwee ñu xam ne ñu xamal na ne fii mooy kër Serigne Saliou jàmm jaa ngi fi xéwal gaa ngi fi lépp a ngi fi ndax loolu rek mooy suñu yitte maa ngi sant bu baax nag euh, jëwriñ Issa Diop mais moom itam isaamee at mu at mu jot ma ma leeral leen ko ndax saa yu magal gi desee ay fan mag la ci lay dagg yitteem ñëw ànd ak man liggéey bi ba noppi jël alalam nag def ko ci bés bi jëf jëf joo xam ne kun ko wax sax mu yéem la wax dëgg yàlla waaw ren dafa ñëw ànd ak doomam bu góor ma nga ne toog taawam bu góor bi mu ñëwee ni ma damaa indi sama doom ngir dama koo bëgg a miinal yoon wi ngir mag laa ngir ëllëg bu ma fi jógee li ma daan def mu ko ko def kooku yéeneem rëy na waaw fi ma teg sama tànk nii dama bëgg sama doom teel koo miin moo tax ma ne kaa ñu ànd ba bu ëllëgee su ma fi nekkul la ma daan def mu koy def loolu Issa bi ma ko seedee sama kanam taawam doomam mi ngi fii toog loolu dama koy seereel mbooloo mi di xamal leen ni moom defati na tawféex at mu jot mu def ko nag waaye defati na tawféex waaw te mag nag lu baax la ci kër waaw mag la mais mag mu am jom la te ku bëgg lu baax la vraiment waaw kon nag ngeen ñaanal ko moom itam mu yàgg ànd ak ñun liggéey bi na ko suñu Ibra Gueye daan ànd ak ñun di sant bu baax itam xale yi fi nekkoon yépp ku mel ni suñ Badou Gueye teel naa ñëw moom itam nga xay ni ren daal jiitu si ndax fii ku fi jiitu xaw ngaa dee fii ku fi ñëw suba la màggal gisoo ku fi ñëw une semaine rek xam ngaa dee ndax lu ne danaa la ko liggéeyloo ndax damay bëgg bu gan ñi nekk ñëwee nekk alees kër gi te ba léegi damaa jàpp ni fii ñu toll nii ci wàccaayu màggal damaa nekkagun ci fondement kër gi fii pour man ci fondement la ne waaye yi ma ciy xalaat ci fondement bee toll waaw yi ma ciy xalaat ngir seen dalluwaay yi ci fondement laa toll ndax bëgg bu ngeen dikkeer ngeen ngeen ngeen ngeen mucc ay ayib waaw loolu lañu ko bëgg kon nag taxawaay boobu maa ngi ciy sant Badum yu baax. te di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa defal ko tawféex waaw ay ñoom Seexu rek ñoom ñëpp xaw nañoo dee kenn ku ci nekk waaye nag lu baax la ñuy sàkku rek li ñuy sàkku dana daje ngërëmal suñu Tuubaa ca loolee waaw Mouhamed Ndiaye yàlla na ko sama borom subhaanahu wa defal barke borom Tuubaa sant naa gan ñëpp nag waaw ma kenn soxna Xadi Sekk waaw sant maa ngi lay sant bu baax ci ni ngay ànd ak njaboot gi chaque année ñëw wàcc ci kër gi. waaw soxna Njaay moom boo xam ne yaay faatu kon boo xam ne ma yaay faatu man la yaay faatu kon danaa la woo yaay faatu rek <laughs> waaw ndeysaan moom itam borom pësteef la chaque année mu ànd ak njabootam ñëw teewe teewe teewe bi waaw ba ci suñ paataal mi toog sama caa sama ndeyjoor di sama dëkkandoor waaw paataal moom mii ñoo bokk dëkk apix këram ak sama kër ñoo taqaloo waaw ndeysaan soxnaam dafa génn àddina bu yàggut matagul sax weer ay fan la mm, ma ko waxee ma taxawu ko ban denc ko muy góor gu baax ndeysaan bi màggal gi jublu see ma ne ko mbaa di nga màggal si rek laa ko wax yem ca mu takk ndigam fekk fekk ma Tuubaa waaw kon loolu ànd ak njabootam loolu ak yaatal la ci sant naa bu baax a baax yàlla na leen suñu borom defal tawfeex jooju sëñ Cheikh Biyaay yi moom it sant naa ko baax moom Baye Fall la moom waaw moom itam takk na ndigg li ñëw ànd ak ñu liggéey bi kon nag na ngeen xam ne daal sant naa ñëpp bàyyiwuma kenn waaw ñi des ñëpp ay taalibe la ñoo bokk kër gi waaw liggéey bi rafet na sell na léegi nag dama leen di dénk ay kàddu comme dama jàkkaarloo presse bi dama leen di dénk ay kàddu yoo xam ni ngeen bàyyi ci xel ci fii jamono toll maa ngi leen di dénk bu ngeen demee ginnaaw bi ngeen jógee ci màggal gi na ngeen jàpp ne dafa am lu ngeen yóbbaale mooy ngërëmal Sëñ Tuubaa ndax ku màggal si boo demee da ngaa yóbbu ngërëmal Sëñ Tuubaa loolu ngeen yóbbaale nag damaa bëggoon bu ngeen demee ngeen waggar ko lu ngeen koy waggare mooy na ngeen moytu mu wadd wala mu ruus wala ñu sàcc ko la koy tax a mooy lan mooy jëf lu yàlla di tere wala néewal sa pas-pas wala xëy ci as gor ci lu dul noonu bu ngeen demee na ngeen xam ni da ngeen a yeesaat peq mel ni ko demoon aji màkk ngeen yeesalaat seen diggante ak nit ñi rafetal seen diggante ak seen seen seen seen mbokki jullit si rafetal seen diggante ak seeni waajur rafetal seen diggante ak seen mbokki taalibe ba noppi nag way deng ci liggéey liggéey ku ci am liggéey nga sax ca bul ko xeeb ku ci amagul liggéey nga di ko bëgg te gëm ko te xam danga ko am te bu leen jombale seen bopp dara fexe leen ba déwén bu ngeen di ñëwaat fii li ma leen di ñaanal ci barkeb Sëriñ Tubaa ngeen am soppeeku koo xam dana ma wóor ni ma soppeeku am na ci fànn yépp ay dajale ay 5 million ki 4 millions ki 3 millions du affaire loolu par kenn ko war joxe ay dajale 3 millions 4 millions ñoo dañuy màggal du mbir mi déedéet loolu kenn nit ko war a génne joxe ko te du ko yëg bu ngeen demee bëgg leen Sëriñ Tuubaa fekk leen ci li ngeen bëgg bu ngeen demee sàkku leen ku tedd ki fekk leen ci li ngeen di sàkku ak lu mën a doon te ngeen dëgëral seen pas-pas te bañ a nax seen bopp bu ngeen ko defee dangeen mën a yees ci fukki weer yeeg ñaar balaa dellu siwaat fii bu ko defee bu déwénee buñ fi yàlla bàyyee nag fekk nag poos yi dara man cee nekk ngeen mën a def màggal goo xam ni day folli gépp màggal gu fi mës a jaar te loolu mooy li war a am ndax màggal gu ñëw rek boo defee boo analyser di nga xam ni li nga war a defaat ak ak ak la ci yépp gis na ni yoor yoor bi lu am sens la ci màggal gi point bu am sens la yoor yoor bi daanaka mooy màggal gi te loolu doon naa ko bàyyi xel mais dama koo gën a bàyyi xel fi ne sànq rek maa ngi koy xalaat naan est-ce que man duma ma barab bi ñuy defee yore bi baas ab baas duma ko wutal condamné spécial ngir yoor yoor bi ndax dama bëgg bu yoor yoor bi jotatee bu ngeen fa toogee fi ngeen toog lépp nekk fa du tàng day am kilim lépp nekk fa te loolu lu mën a nekk la ni ma koy xalaat sax bu ñu ci yeggee xam ni jataayu yoor yor bii lu am solo la ndax moom mooy lépp te loolu nag biir si dafa am lu mu laaj waaw kon nag li ma leen di ñaanal mooy seen poche yi diis te bu diisee ngeen julli ko Sëñ Tuubaa waaw waxuma poche bu diis nag ñu julli ko ca mbedd ma waaw poche yi diis dañuy jëf jëfal Sëñ Tuubaa ndax am am am am li muy jafe jafe jafe joxe ko gën a jafe am wut li muy metti metti metti ama ko gën a jafe waaye boo xësee ba am am li muy jafe jafe jafe li nga am noo koy géré moo gën a jafe waaw loolu daa matti bàyyi xel kon nag maa ngi leen di ñaanal rek daal moom man daal sama xol sedd na guy waaw moom coono li muy bari bari mooy wax ci sama xol sedd na guy ci daayira yëpp waaw bëgg nañ lool waaw xëy na gàllankoor bari war na ci ñëw gi ci ñu bari surtout waa xidmatu saalixiina waaye loolu lépp ay xéewal la waaw suñu borom moom bu na lay def tawféex rek day am nu mu demee loolu lépp ay xéewal la waaw lu ci ne da ngeen koy waaj rek màggalu Sëñ Tuubaa gi moom màggal la koo xam ne at mu ne day am waaw nit ñi di ko nit ñi di ko xaar at mu ne Tuubaa ma waaye bu am ñu fi bëgg dal waaw kon da ngeen koy da ngeen koy da ngeen koy bàyyi xel rek yàlla doon leen sutura waaw ngeen ngeen ngeen farlu ci jaamu yàlla di di di jaamu suñu borom di julli waxtu yi sàmmonteeg moom di moytu ay àq seen diggante àq àq àq lu sew la àq day feebar nit àq day gàttal aw fan àq day feebar nit di gàttal aw fan di xañ nit wërsëg àq baaxut di leen def àq seen diggante àq koo ameel àq lu mu néew ne ne ko jégal ba mu la jégal da nga dem ndax diggante nit ak boroomam garaawut diggante nit ak boromam moo garaaw waaw jaam ak boromam jaam ak boroomam jaam ak boroomam garaawul jaam ak moroomam moo garaaw waaw ndax yàlla mën naa baale lépp waaw kon loolu dinañ ci bàyyi xel bu baax ngeen di sóoraale seen diggante ak seen seen seeni i seen mbokki seen mbokki seen mbokki jullit yi yàlla leen yàlla dolli sutura dolli leen jàmm dolli leen xéewal ci barkeb Sëriñ Tuubaa euh, photo bii ñu yëkkati woon sànq anamu bu sëñ Saaliw bi ana Pape Modou Ndiaye jëwrin Pape Modou Ndiaye du ma ayoon tey la màggal ñëwal ni sama kanam waaw noonu Pape Ndiaye professeur jógal joxal ma ko photo Serigne Saliou boobu ma gërëm ko ko ci màggalu tey gi yóbbul maa la ko jox demal ci barkeb sëriñ Saliou ci taxawaay bi ci bisub sëñ tubaab bi nga xam ne amul lu dul moom ak ni nga ko taxawoo ak ni nga ci sonne maa la gërëmee foto sëriñ Saliou Mbàkke boobu yóbbul Moussa indil ma beneen foto ci ginnaaw ana soxna Mareem Jóob Kayaar ana soxna Marème ah, waaw ñëwal ne yabalal jenn jëwrin waaye ci góor yàlla yi daayira soxna Faat bu Touba Kayar <laughs> alhamdulilah ah. waa Touba Kayar jëf loolu mooy seen taxsiis ah, waaw <laughs> fa tabarakallah jërëjëf dajul dajul beneen bi ah, ah tabaarakallah tabaarakallah ana jëwriñ Papa Gaye ñu ayee ah, alhamdulilah tournel ma xool foto yi bi léegi gisagul naa ko waaw ah, kay fa tabaarakallah mi ngoog waa daayira Kanzul Muhtadin jërë ngeen jëf yàlla leen yàlla dolli sutura dolli leen tawfiixi àddina ak ju àllaaxira barke barno yàlla ngeen ko teewee at yu bari waaw téye leen ko de te taw feex rek nag barke borom Tuubaa waaw kon ah waaw waaw góor tabaarakallah yal na leen yàlla doole taw feex yàlla nañ ko fekkee at yu bari at mu ñëw gën a kawee gën a kawee ma ca des waaw at mu ñëw gën a taw feexe ma ca des waaw yàlla nañ ko màggal at yu baree bari yàlla na ngeen am jàmm yàlla bu kenn am la ko naqari yàlla na xol yëpp féex te naat te tedd te sedd te ànd ak jàmm yàlla na ngeen am ay kër yu ngeen dugal seenu njaboot yàlla na ngeen am ay boromi kër yàlla na ngeen am ay soxna yu baax yàlla na am ay soxna yu baax borom kër yu baax te nangoo liggéey te nangoo jàmm yàlla ci barke borom Touba yàlla na ngeen doon ay muri saadex barke borom Touba sëriñ saaliw sëriñ Saliou Serigne Saliou maa ngi lay ñaan yàlla na nga yàlla na nga leen defal tawfiixi àddina ju àllaaxira yàlla na ñu naat ba faw yàlla bu leen dara jaaxal bu ngeen fi jógee lu ngeen bëgg yàlla na ngeen ko am yàlla na ngeen dellu ci jàmm musiba da leen ko dégg rek ak i xat-xat yàlla bu leen dara gàllankoor ci barkeb Serigne Saliou ci barkeb Serigne Saliou ci barkeb Serigne Saliou ci barkeb Serigne Saliou waftax lana kulla baabin kunta fatixahu lisaalixiina min alxayraati ya allah wasluk bina nahja rusdin waqifina zalalan watrut lana aljinna walcheytaana ya allah wa kammilan kulla ma nanhu wa naqsuduhu wa hablana kulla ma naxtaaru ya allah wa hablana kulla ma naxtaaru ya allah wa hablana kulla ma naxtaaru ya allah laqad jaakum rasulun min anfusikum asiisun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim fa in tawallaw fa qul xasbiya allah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim wa huwa rabbul arsil azim wa huwa rabbul arsil azim wa huwa rabbul arsil azim amana arrasulu bima unsila ilayhi min rabbihi wal muminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarraqu bayna ahadin min rusuli wa qalu samicna wa atana gufranaka rabbana wa ilayka almasir laa yukallifu allahu nafsan illa wasaha laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat rabbana la tuwaqishna in nashina aw axtana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 ahousu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin irrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa laddaalliin innaa anzalnaahu fii laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalul malaa'ikatu war-ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun salaamun hiya hattaa matla'il fajr bismillahi irrahmani irrahim inaa ansalnaaha fi laylatil qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahr tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun salaamun salaamun hiya hattaa matla'il fajr bismillahi irrahmani irrahim inaa ansalnaaha fi laylatil qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahr tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun salaamun salaamun hiya hattaa matla'il fajr وصلي صلاة تنجنا بها من جميع الحاجات وتبلغنا بأقصى الخيات صلي صلاة تنجنا بها من جميع الحاجات وتبلغنا بأقصى الخيات صلي صلاة تنجنا بها من جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الخيات وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم سبب هيبتي يا أن الله